Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dalee na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na am na ab laaj ci laaj boo xam ne kenn ku nekk sañ na koo laaj ci réew mi maanaam mooy assemblée nationale seen bopp la ñu fa nekkal wala Macky Sall la ñu fa nekkal wala askan wi la ñu fa nekkal en tout cas li am ba des ci xalim ak Assane Samb nee na ñi nga xam ne ñoo doon xaar assemblée nationale boo xam ne dafay am ak te bu baax a baax ñooñu nag bay boo ñu xam ne am nañu mbetteel ndax la ñu doon séentu ci assemblée nationale assemblée lay gisuñu ko ci sunu assemblée nationale bi ndax mbiri nga xam ne kàddoom yi garaaw na genn xeetu garaaw goo xam ne ñu baree bari wax nañ si waaye nag waa assemblée nationale amul benn baat boo xamante ni wax nañ ko si maanaam sax wax Aline Dumburu Sow na ko li nga wax sax garaaw na loolee sax maanaam fekkul ci Moustapha Niass ñi nga xam ne ñoom la àndal yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xamal laan ñu loolu nga xam ne Aline Dumburu Sow wax na ko su doon nag ab député boo xamante ni si ku jige la nekk kon nag assemblée nationale ba léegi ñoo ngi koy nga ngawte te loolee maanaam lu jaaxal nit ñi la yéenekaay gi du source xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci milliards yi nga xam ne dugal nañ ko ci mbënd mi ci Sénégal maanaam ci inondation yi doon ngeen dégg ñu ne ay luuba la ak i tojaange daf ci am loolee sax taxoon na assemblée nationale daal di teg ab mission d'information yéenekaay gi nee na mission d'information boobu am na ay ministres yoo xam ne jot nañu leen a déglu Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur déglu nañ ko Abdoulaye na Diallo déglu nañu ko Abdou mi ñu dénk ko Lansana Gagny Sakho mi nga xam ne moom tim déglu nañu ko yéenekaay gi de Le Quotidien xëy ci jàngoroy coronavirus ak ni nga xam ne moom la commencé lawaat ci réewum Sénégal rawatina kaa importe yi maanaam cas yi nga xam ne ñooy jóge bitim réew di ñëw ci réewum Sénégal loole nag tax na kilifa yi fas yéene jël ay matukaay nee na nañu ngir na nga dugg ci réewum Sénégal il faut nga yor benn test test négatif boo xam ne gën gaa gàtt maanaam toll na si juróom-ñaar ci ay fan yéenekaay gi de La Témoin mu ñu xamal nañu xob bi ko bala ngay lakkale lu jëm ci cas importé yi tax na Sénégal jamono ji ma ngi geetaru na benn fan ci weeru novembre képp koo xam ne yaa ngi dugg dugguti ci Sénégal di nga yor ab test boo xam ne test négatif lay doona yéen a kaay gi di grand place ñu koy fekk fa Aminata Touré mi nga xam ne moo jiite conseil économique social environnemental muy joxe ay recommandation ci lu jëm ci sunu wàllum wér yaram ak tagatémbe gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci jàngoroy coronavirus Sénégal signeeti na ay contrat jëm ci wàllum pétrole ndax am na signature bu dox diggante réewum Sénégal ak Petronor ñii nga xam ne ñooy waa Petronor ñoo ñëw ci Sénégal dogal ak i engagement yéen a gi di Sud Quotidien mu wax ci lu jëm ci wàllum politique ak Ousmane Sonko mi nga xam ne moom lañ bàyyee woon terrain politique bi muy lëmbe maanaam di yëkk tey kàddu bu askano amee jafe-jafe ñu gis Ousmane Sonko ci seen wet muy wax di def ak dindi ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi nawoon patta pataara la jamono ji nag mën nañoo wax ne Ousmane Sonko déconfiné na leneen ndax nag PDS jamono ji yeewu nañu di wax njaayum carte Malick Gakou moom tim yëngu na li jaaxal ñëpp kay mooy noppi gu gi nga xam ne Idrissa Seck noppi ko te nag li garaaw mooy noppeeg Idrissa Seck gi maanaam kenn mënu koo comprendre yéen kaay gi di réew mi ko di jee xëy na ci 94 milliards yi maanaam milliards yi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko doon tuumaal Mamour Diallo na daf koo toje ne Mamour jallo daf ko luubal 94 milliards yooyu nag coow li bëri woon na lool lool lool ci réewum Sénégal loolee sax taxoon na Mamour Diallo daal di porter plainte Ousmane Sonko waaye nag ba léegi ni daal man na benn at mbir mi daal demul cëng dikkul mbay laara yéen kaay gi di réew mi ko di jee nee na am na benn sondage boo xam ne association des journalistes en santé ak association des femmes juristes yu Sénégal ñoo ko def maanaam sondage bi nag dafa jëm ci lu jëm ci yàqu ëmb ndax ñoom nee nañu téeméer boo jëlee juróom-ñaar fukk yi ak juróom yi yëpp ànd nañ ci képp koo xam ne ëmb nga te ëmb bi neexu la nga daal di koy yàq rawatina su de da ngaa ëmb ba pare sa wàllug wér-gi-yaram am ay jafe-jafe wala nag ñu daal di lay siifa wala ku lay jege lool daal di ndax ci Sénégal gis nañ si ñoo xam ne dañuy ëmb te ka leen di ëmbal ku leen jege lool lay doona ñi nga xam ne ñoo ëpp ci Sénégal yi nag ñoom jàpp nañ ne cas bu mel noonu bu amee war nañu la bàyyi nga mën a yàq sa ëmb te si senegal dañu ko fi tere enquête yéen a kaay nee na Sénégal réew maa ngi toj am na nag ay xale yu jigéen yoo xam ne seeni at fukki at ak juróom jàpp fukki at ak juróom ñaara ay lesbienne maanaam doon sëy ci seen biir ba pare nag di ko vidéo di jaay vidéo ya xaalis bu bare bare bare jamono ji nag am na ñett si ñoom ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen a kaay gii di Vox Populi nee na Sénégal mooy ñetteelu réew Sénégal mooy ñetteelu réew bi ëpp ay nit ñoo xam ne amuñu xëy ci àdduna bi yéen a kaay